jërë ngeen jëf maa ngi eh, fësal sama mbégte tey di ñëw ci famille boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que dañu nekk ay tout tànk di jàng si ci école bi ñun ñëpp ñu war a jàpp ni li ñu doon tey ak li ñu mën tey école bi joué na ci rôle am moom àllarba bu ñu war a delloo école bi ak ña ñu jàngaloon heureusement promo yi fi jaar yi fi jaar am xel mu rafet moomu ni tey màgg nañu parce que am na promo yoo xam ne en même temps dañu ne quatre parents d'élèves kon yaakaar naa ni tey fa nga jaaroon nga dem ba say doom ak say jarbaat di fa jaar nga ni waaye na ma fa jaaree woon mu métti ñoom bëgguma ñu jaare noonu mu métti mbégte la fierté la te li ci neex ci jotaay bi da ngeen di citer sama qualité mère mais ñu bari ci assistance bi ba ci ñu yor presse bi ñu bari ay promo lañ tamit kon tey composante yi fi nekk yëpp boo seetee ak ku ne rôle bu mu cee joué ba ci ñi defar kër gi ak ñi ngeen doon cité ñëpp waa kër gi la ñu. Adja Tall su ma la nuyoo ci turu jigéen ñi nuyu naa ñëpp ndaxte sa taxawaay rafet na euh, man bu ma ci duggee kuraak Adama Diagne ñoo ci sonn ma dugg ci wante moo tax mun mënuma wax te duma leen tudd surtout Adama aussi muy koo xam ne dootul génn suñu xol. vraiment xam naa ne lii fu mu tëdd mu ngi ci am fierté bu baree baree bare yàlla na ko yàlla yërëm yeesal yërmandeem ci moom su ma ab Ablaye Diagne tudd naa ñëpp n'est-ce pas ndaxte gis naa rôle bi mu ci joué aussi donc euh, professeur maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp le grand ingénieur maa ngi lay gërëm tamit di gërëm ñëpp ku nekk ci ñun am nga sañ-sañu jël sa wërsëg ni maa ko def ci école bi te yéen a ngi koy def dafa siiwul nag mais ñu bari ci yéen yéen a ngi def lu bari ci école bi ñu koy dégg te leen ko siiwal kon promo yi fi nekk ak yi nekk bitim réew ñi teew ak ñi teewul ku nekk jàmbaar nga ci CM bi baax boo seetloo tuuti ruq salle de classe bale dañ ci bàyyi deux mille cinquante ndaxte pourquoi ñu bàyyi ko fa bi ñuy tabax salle de classe bale ñaari salle yële parce que ku fi am BFM ku nekk da ngay génn Médina pour jàngi def seconde terminale wala lenn amuñu lycée ñu ne ñun tolloon nañ jamonoy CM waaye tey war nañ koo weesu war nañu mën a am lycée inspecteur bi fi nekkoon tudd moor biñ ci waxtaanee ak moom mu ne salle de classe yi moo néew mais boo leen ma garantiree ni chaque année mën ngeen dolli deux salles de classe boo leen ko defee trois ans mu am six classes yu bees ñu def leen lycée parce que il faut ngeen comme que am na troisième boo leen bàyyee école bu ubbi déwén bu deux salles de classe yi pare seconde lay nekk seconde boobu bala école di tëjaat ngeen def première. bu paree bala ñuy parewaat ñu am terminal loolu moo indiwoon ñaari salle de classe yi la moo tax ma ne woon du ma ca ket duma ci def lenn ndax am na ñu ci sawarlu woon ndax booy politique loo def di naan bilan lay wut moo tax ñu profité woon ci suñuy pexe fexe ba tabax ñaari salle de classe yi bàyyi place escalier yi parce que fondation trois étages la yor dañ ko def woon pour bu ñu paree moo tax ñu def ko dal defuñu ko defuñu ko kii nii zinc pour bu ñu paree mën a tegaat yeneen deux salles ci classe am première buñ ci paree mën a tegaat yeneen deux salles am terminal pour ñu mën a am lycée boo gisee ma koy rappelé pour wax leen ni seen mission jeexagul dama leen di rappelé ni seen mission bi ngeen commencé mu noobu loolu jeexagul ndax objectif final bi mooy ñu am lycée donc euh, am nañu yeneen quatre salles de classe yu ñu war a tabaxaat te yaakaar naa leen ci yaakaar naa ci promo bi ndaxte man de teggil nañ ma wax pas en tant que maire parce que en tant que maire du sama compétence mais en tant que ku fi jàngee promo samay souvenirs yu bari ko ci école bi may xool école bi doon autorité mënuma ci lu bari ndax du sama compétence tey ba promo bi conscienté ba ni tey nañu engagé wu defar ko yaakaar naa ne wala ñu cité en modèle ci promo lycée yeeg école yëpp man ma leen ciy félicité di leen ci encouragé. tey fàttali di wax ci personnel bi ngeen di wax yaakaar semaine bi affecté naa ñetti nit Ndeye Ngone Gassama Fatou Soumaré ak Thiaba Gueye ñoom ñett ñëpp affecté naa leen fi pour ñu jàppale ci liggéey école bi donc damay continuer aussi yéen élèves yi du compétence su commune de Médina mais dina ànd ak promo yi bala muy yàgg ñu am nu ñu waxtaanee may leen ay fourniture scolaire mais du mairie Médina promo bi la télé bee tax may wax wax ju leer du mairie Médina promo bi ci boppam dinañ ko waxtaanee seet bala muy yàgg nu leen indi leen ay masque indi leen ay gel ni leen fourniture scolaire may dellu di gërëmaat ñëpp di wax ni kàddu gi ma jël kàddu promo la li ma leeral mooy kaddu maire bala xëy suba su mujj di ma attaqué mbaa bay mais kàddu promo la may fësalaat sama fierté di yendoo ak yéen di toogoo yéen ndax amuñu lu leen ëpp di wax ni képp ci ñun ku ci mën dara wala ku ci tekk dara wala ku jéem dara fierté promo bi yëpp la.